ginnaaw loolu ñuy fàttali rek ne bis bi nekk na bis bu am solo boo xam ni at mu jot ñu taxawee ko ngeen taxawee ko ñu koy def euh, depuis at yu bari di ko def ci ay thèmes yoo xam ni yu amal solo réew mi la at yee ci ginnaaw waxtaane nañ fi li nga xamee ni mooy laïcité dellu waxtaan fi lu jëm ci mbirum éducation maanaam muy yar ak jàngale dellu waxtaan fi ay waxtaan yu jëm ci Euh, taxawaayu politique ak l'islam ren nag ñu jël thème boo xam ni comme yeneen tem yi jàpp nañ ne euh, thème bu amal solo réew mi yëpp la kuréel yëpp ñëpp ñuy séq l'islam bi te njariñu réew mi ak delluwaayu réew mi ci cosaanam ak lislaamam ñor séq nañ ko mu doon waxtaan woo xam ni xaj na bariwul lu muy am fii nga xamee nit ñi mooy Touba te ñu jàpp ne ci suñu jàngat ci bi ñuy choisir thème bi ne kenn waru cee jiitu Touba kon bu ñuy waxtaan ci lu mel noonu ah, comme niñ koy defee ak mu jot dinañ seet réew mi ñi nga xamee ni ñoo ci am xam-xam te amantu aman maanaam du am xam-xam boo xam ni am xam-xam bu oyof la ah, moo tax ñu invité woon ki nga xamee ni mooy docteur Ndiogou sàmm mu sol lu mbokk li nii sama càmmoñ mu doon koo xam ni docteur la jëm ci lii nga xame ni nii mooy droit islamique mu def ci thèse am at bii nga xam ni moom lañu ñu ne ci université internationale Al Madina ba nek Malaisie ñu xam ko it mu defe fé defe defe fofu masteram amé fi ci dakaru certificat d'aptitude aux fonctions d'aide. Wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain مبروكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي آه، فسل في قلبك دي سنفون عن تبباع في فنك دي فنك اسمي عبوالي دي في بولي آه، بسانت مباع عبا نيغا حمني نيون نيون نيون واجل اسمي آه، مواتنا في حمني موي شيخ عبد الأحد جاي دفعنا سنو xarit di suñu soppe ci kóolute gi nga xam ne xam na ko ba boole yi fii ñu war a taxawal tey liggéey bii comme waxtu bi nag euh, li ñu ci jox bariwul lool te sumb bi tamit nekk na sumb bu rëy euh, dañuy baal rek ñu yemale foofu ñu yóbbu ngir man a dugg ci waxtaan bi ndax ñu man ci euh, def li nga xam ne moom lañ sàkku ci ñoom. kon soloy waxtaan wi mooy wala boog liñ ma ci cërale mooy ma waxtaane ana nan la code bi mel ak li nga xam ne mooy asharia islamiya ndax dëppoo nañu wala dëppoowuñ ndax li ñu dëppoowul loo xam ne la am na jeexital ci dundu doomu aadama yi ak seen diine sax code de la bi comme ni ngeen ko xamee mooy téere bi nga xam ne ci senegaal waa Sénégal di sukkandiku ngir war a lijjanti lépp lu jëm ci wàllu askan wi ak seenu dundin tàmbale ko ci amuk doomu aadama ak fi muy askanoo ba keroog muy génn àdduna bañ koy miiras ba diram jeex ci mbiri àdduna loolu la code bi di méngoo histoire code bi nag mi ngi dellu ci atum loolu am na muy tekki mooy ne kon bi ñuy doog a daanaka moom suñu bopp euh, ci la code bi ñëwee loolu am na muy tekki ndax ndax bu ñu moomoon suñu bopp dëgg dëgg dëgg ndax code bu ñu mel danañu àtte ci suñu wàllu nekkin wala déet waaye ak lu ci mën a am ci jooju jamono la fi code bi ñëw ba fi jaar ba tey fi mu nekk ak doxal gi nga xam ne moom la waa réew mi di doxal doxaluñ leneen. ci code boobu pour wax nag ci li nga xam ne mooy taxawaayu charia ci code bi nga xam ne mooy code de famille bi nga xam ne ci la Sénégalais yi di àtte woo danañ dellu tuuti ci histoire ndax code bi am nañu fi yor seen kàddu ñoo xam ne ci ñoom lañuy dellu ci lépp lu mën a doon ndax lislaam moo tëddee noonu amul lenn loo xam ne ah jullit ñi danañ ca sóobu ca delluwuñ ca ci seen i kilifa. loolu bi ko ñi nga xam ne ñoo yilifoon réew mi xamee am na lu ñu defoon muy jéego ko am solo boo xam ne donte continuer wuñ ko mais baaxoon na te buñ ko continuer woon man naa am njëriñ mooy ne projet bi dañ koo jëloon yóbbu ko ci kilifay diine yi jox leen ko kër yi diine yi fenn fu nañu def fa yóbbu fa ab copie leneen kat lii mooy tëralin bi nga xam ne ci lañ bëgg a saytoo mbiru askan wi ci askan wi comme ci yéen la ñuy dellu xoolal leen ñu li ci nekk ba xam nan la demee lu ngeen ñu ci wax dinañ ci bàyyi xel ba bu ñu koy wotee danañ xam la ca jaral méngale ak pas-pasi waa réew mi ak la ko ca jaral waaye li am ba des ci ñi xam mbir ñi dëgg-dëgg ca xam naa ne ku mel ne euh, Imam Mbaye Niang dana bari lu bari ñu ci war a dellu si ba ñu ko yóbbee ci kër sëriñ si avant sëriñ si di ci wax seen xalaat li ñu joxe seen gis-gis code bi yóbbu nañ ko ba voté ko kon foofu la code bi njëkki amee problème ci lu koy tax nekk yoon wu ñu war a mën a jaar loolu moo tax bi mu demee bañ voté ko réaction yi tàmbalee di feeñ fekkoon na sax kilifa yi ñu ngi liggéey ci suuf di daje di jàngat kot bi di ci karmat li nga xam ne moom lañu ci war a wax ak point yi nga xam ne jàppe nañ ne code bi dëppoowu ñi ak l'islam moo tax bi mu ñëwee fii ci Touba nga xam ne tey histoire aada nafsahu comme ni ko arab yi di waxee histoire mi ngi indiwaat boppam tey jotaay bi di jotaay bu doy waaye di jotaay bu daw yaram ndax nii ñu toogee tey di ko gëstu noonu la fi mag ñi nekkee woon bi code bi ñëwee ñu def ci ay jotaay ba génne ci ay conclusion yu leer nañ moo ne bi mu egsee fii ci Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké rahimahullahu waxoon na ci wax joo xam ne ba léegi kenn fàttewu mu ne war moom day code bii narfudu duxuula haadihi al-mudawwana fii Touba xaw ma lan waaye code bii moom du dugg Touba kenn du ko fi àtt ndax fii ci réew mii di Touba dëkk bii di Touba pàkk bii di Touba kàddu gi yàlla subhaanahu wa taala moo fi féete kaw lépp lu a doon te amul benn doomu aadama boo xam ne am nga sañ-sañ di deureul nit ñi lo xamne lu wuté kàddu borom bobu la ba nopi nit ñi di ci wéy loolu la nga xamne moy mooy Cheikh Abdoul hadd Mbacké waxoon ba mu démé timit ci waawam même tontu bobu la fa fekk ci mbokam ma Cheikh Abdoul Aziz rahimahullah moom it mu wax li ni mel ne lasna fi Sénégal bi xaajatin ila mithli hadihi almudawana ñun sénégalais yi soxla wuñ bi ko loolu Serigne Abdoul Aziz wax bind ko ne wala yamliku al musharrihuna حقا في فرض مفاهيم وقوانين أجنبية على الشعب وخاصة أنها تتصادم مع قناعاتهم وتصوراتهم كمسلمين pour tënk rek mu ne daal jullit yi doon ay jullit di dellu ci alquran ak sunna mooy ñu ñuy jëfandikoo code bii kon waa Tiwaawoon it même kàddu gi nga xam ne moo jógee Touba moom la ñu feddali ko boo demee ci famille Omar yéen loolu la ñu wax nga dem ci mbooleem pàkki diine yi nga xam ne moo fi nekkoon ci jooju jamono kenn jotoon ci code bi même tontu boobu la ñu tontu woon ku mel ne Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma amoon ci taxawaay boo xam ne mooy taxawaay bi ci gënoon a fés ndax man maa ngi koy tuddee ci sama benn téere boo xam ne moom laa tuddee Zaimul Muharaba ci jamono jooju moo nekkoon maanaam rasul xirba moo nekkoon ci kanamu ñi nga xam ne ñoo jugoon ngir wax ci code boobu ak xeex ci code boobu ba kenn du ko woo ci senegal moom yemul ci bind rek maanaam ay kàddu yu gàtt waaye dafa bind ak téere téere bi rek boo déggee thème bi xam ne banque mooy wax kalimatullahi hiya loxol yàlla ko tuddee téere boobu maal asafi shadid ni waroon a tasaaroo ci réew mi tasaaroowu ko ni mu ko bindee muswadda bi jën na ko yóbbu ko ci mbooleem waajuram yi fi nekkoon ak ay mbokkam yi nga xam ne ñoo fi nekkoon ak moom ñom ñëpp deugal ko kenn ku nekk bind signé ne li nga li sëriñ Cheikh Mbacke mi wax ci la ànd ba fa ñëté ginaaw alhamdullilah yàlla defal ma tawfiq bi may bind sama doctorat vraiment document bobu nekkon ci maraja yi ëpp solo ci ma doon delu lama ca doon bind ci diko bokk ci doctorat bi ma xeeb ko lool ne li dal dama koy ber def ci benen liggéey bu gëna yaatu moy kalimatullah ilahul yaa bi dama koy shara génne ko yaatal bima ko defé alhamdullilah Euh, sëriñ Abdoulaye Mbacke mii Gaynde ma yëg ko jokkoo man ñu waxtaan ci mu ne ma day bu dee am na ci yitte bëgg naa ñu móol ko ndax mu gën a tasaaroo ci laa ko waxee ne kon ah man de Mbacke bu ma sañoon ñu móol ko ndax man li ma yitte rek mooy xam-xam ci la ko móolee Maroc vraiment ñu móol ci lu bari tasaare ko ba ñu baree baree bari jot ci ñu traduire ko ci français traduire ko ci arabe ñàkkul ne am na ci ay exemplaires yu fi des mën naa am dina am ci jox bala ñëw jógee fii bi ñu demee ba gis ni mënuñu contre confrères yi ñu wël wëlbatu ko def ligne de masse parce que ñu si bari si ñoom ay anciens communistes lañ woon ñu wël wëlbatu ko def ligne de masse liñ daan jàng ci mouvement marxiste yi suur ci biir nit bu ko defee ñu dem ànd ak famille confrères yi pour ni léegi l'islam la ñu la bëgg dooleel à partir de ce moment porte d'entrée bi gën a simple mooy affaire bu jigéen mais je dis que islam day wax science parce que du 8 8e au 12 12e siècle le monde musulman xam-xam bu fi amoon Michel Serres moo bind sur terre scientifique si monde islamique la génne woon naka lañ def ba xam-xam boobu donc bataille idéologique moo am aujourd'hui pour le contrôle de la société sénégalaise et des consciences des Sénégalais il faut que nit ñi xam ko te loolu nag si li gën a bi gën a faible lañ ko mën a jaarale mooy kasu réeral nit ñi sur ay waxu mais moi, ma position personnelle, en tant qu'assistante sociale, docteur en service social, pour l'éducation familiale, famille. que les familles famille Sénégal les ba tax ma Madame familles Cheikh pour wax il faut que nous ci je pense que war na pour nous voir, la nous li a et toujours dit que di leen islam confrérique est le meilleur allié des parce que islam confrérique dafa mos a tax si suñu dëkku ñu laa wax dafa mos jox jigéen ak ak gëddaam la preuve tey lan moo ñu fi tax toog su dul benn jëmm benn jigéen muy soxna may mais soxna may moom kan moo ko meññ bu dul maam jaara buso bi nga xam ne moom moo am dëkkam tey la seule femme mais kooku kan moo ko meññ mooy soxna Asto bi nga xam ne naan si on fait l'historiographie des grands savants du monde mouride li ñuy amee soxna Astou Walo bare na parce que bi borom këram làqoo moom moo jël formé ay aafisu alxuraan yi nekkoon foofu kon l'islam confrérique Sénégal dafa joxoon cër jigéen man bu ñu naxante euh, le le monde va évoluer or soo ko tegul ci dëgg ak ci li nga xam ne moom moo mën a dugg ci bopp nit ñi

mënuloo marché aussi contre contre l'histoire di am léegi ba am mooy li Serigne Cheikh waxoon parce que pour moi Serigne Cheikh mooy ki nga xam ne xalaatam si laa gëstu pendant plus d'une trentaine années mooy nandal man li may xalaat sax Serigne Cheikh li mu ñu euh, li mu ñu mën a bàyyi ci jàngat sur les questions de société sur les questions de famille tant que maa ngi koy nettali mu naan benn vidéo buy jàll li ma naan maam Adama ak awo wàccewuñ leen en même awo Awa ko wàcce ren mu ne xam ngeen lu tax dafa bañ góor ñi tiitulu ci moom parce que moom dafa sarakaloon jigéen moom Cheikh mu ni góor ñi wax nañ leen a xasal seen tànk ñooñu daal ñoo doy waar xanaa du ñu jàpp cinq fois par jour ba seen tànk di ci leen bari leen bari xam nga c'était une façon très apaisée bëgg la dugal ci boppam nga mën a ubbeeku mën a déglu ba xam li ñuy wax mais il est resté un orthodoxe dans la religion si li ma jàngate ci ci moom kon li dess ba dess Sénégal la majorité mom mo di won xale yépp da ñu daw daw jublu ci diiné waye ba da ñu am ñu leen gàttanu le ce siècle là c'est un siècle religieux xale yépp bëgg nañ gëm nañ diiné fii tay Sénégal ni ci ëpp bok mais ñan ñoo leen yor ñan ñoo leen ŋànk pour won leen yoon bi ñu war a bi ñu war jëm donc le contexte peut être facile mais en même temps il n'est pas si facile que ça parce que l'islam confrérique bi Bini Amon, dafa rax dafa rax li am léegi ci Il y a le mouvement radicaliste qui est extrêmement impuissant dans ce pays parce que man damay dégg yoo xam ne loo xam ne man ko ministère de l'Intérieur ou war nañ ko xam ñun sociologue yi xam ci terrain ministère de l'Intérieur ou war nañ parce que xale li ñuy dugal ci ay école di raxas seen bopp pour dindi si moom li fi mag ñi defoon loolu war nañ ko jéem ñu seetaat dama toog ba si yàgg ma ne c'est vrai man sama maam mi ngi judd ci toolu xare parce que papaam dafa àndoon ak Cheikh Ahmadou maamam ànd ak El Hadj Omar ba nga des ba jagar ko moom mais su fekkee ni damay déglu ñoom li ñuy doon wax ak lu ñuy nettali si moom laa daan dégg bu may nekk bu may expliqué naan ma Amir yooyu moomu nii la parce que Cheikh Ahmadou Cheikh la doon mais tey dama dégg ay émir fii au Sénégal or pour ñun sociologue le le cos le langage linguistique dafa am doole ñun sëriñ lañ xamoon Cheikh lañ xamoon mais tey tey toog nañ ba ay amir di am fii ci Sénégal mais war nañ ko jàngat donc euh, bu fekkee ni waruñu tëj suñuy ay xal ak suñuy ay xalaat si affaire bu ay jigéen.

yow di ñu defal waxtaan woon solo bi oustaz bi yóbbu Mbacke Samb ak soxna Mbacke Samb Sow xam naa liñ njëkkoon a wax jaratu ko taxawaayu kilifa yi ci code bi xëy na rek euh, soxna Fatou nee na kilifa yi ñëpp ñëpp ñëpp maase wuñu woon maase wuñu woon dama cee ànd waaw xam nga jamono yi dafa amoon lu ñuy def conseil supérieur islamique dafa amoon jamono yooyu te booba ñi jiite ñi jiite jullit ñi ci Sénégal moom ñëpp amoon nañ fa ay ndaw ñi jëpp sax ñëpp ko jiite woon foofa lañ ay fonctionnaire woon bokkoon nañ ci seen nay Saalaay Jaw su mel ne Saïd Nour Tall moo doon magum magum kilifa islam yëpp ku mel ne El Hadj Ibrahima Niass ku mel ne El Hadj Abdoulaye Cissé ku mel Mag Gaynde Fatma euh, ca mboolem këri diine yi euh, Njaasaan Canaba Madina Gunaas ñoom ñëpp seen ndaw dañoo nekkoon ci conseil ba te conseil ba ci boppam moo joxe xalaat bu bañ lu mel noonu kon moom foog naa ne li ñu mën a jàpp rek moo ñu jiite woon bu jiite Sénégal moom am buñ ci dañu mën a jàpp ndax conseil bi moo doon doon jëmbal ndax dafa génne yu bare bare bare bare yu mu wax ne te yooyu ña nga ca kon neexut a wax euh, na am na ku yëkkatiwul kàddoom waaye ñàkk yëkkati kàddu du tax ñu ne da cee ànd bu fekkee sag njaboot yow yëkkati nañ seen kàddu te seen kàddu mooy ñàkk ànd loolu man ngaa doyloo seen kàddu ñoom moo tax ma jàpp ne loolu moom lu neex a du neex a du neex a dëgëral yëpp solo te soxna si wax na ko mooy li ci kanam li ci kanam te ni mooy li yëpp solo mooy ay loi dañ koy wax di xoole xoolaat saa bu amee benn diir gi dafa jàpp di xoolaat te buñ koy xoolaat itam ni ñu ko waxee ñëpp ñu ci war a bokk ñu bokk ci anam ko war a xoole ñu xooli ko ni foog naa loolu ëpp solo te ñu ko nag ci euh, président wax na ko mooy nit dañuy defal loi te nit daa am lu ko luñ ko mooñe loi dañ cee war a bàyyi xel yooyu loi fekkee bëgg li ñu baax te te bu baax mooy loi bi nit ñi nangu loi bu ñi nangu di ca dem ci seen coobare di ca attew ci seen coobare loi boobu mooy loi bu baax code la famille bii nag ku ne xam na ne du lu Sénégal yi nangu duñ ca dem ci seen coobare soxna si nee na ginnaaw dañoo dañ ne daa wuteeg diine du tax ñu cay dem ñàkk pexe tax ñu cay dem ndax loi ak acte bokkuñ loi moom di fekk démo mën nañ de mën nañ seetaan waaye nag acte nag boo demee ba soxla atte moom mënoo ñàkk dem fa ñuy atte te boo demee fa ñuy atte te boobu la ñuy atte moo tax ña fay dem demuñ fa seen coobare du caageenu ku fa dem rek daa daa gëmut ne wut naa wala wut ak lislaam da ko gêné wut dëgg-dëgg waaye day ñàkk ne xam ne ne Sénégalais yi seen bopp di ca demal seen bopp seen coobare bépp loo bu mel noonu nag du baax dañ ko war a seetaat buñ koy seetaan nag ñu bàyyi xel ñu war a bàyyi xel lépp te foog naa ne xam nañ ne moom bàyyi bañ koy teg dañu war a bàyyi xel lépp ndax bu dee ñi jiite jullit ci Sénégal te Sénégal ay jullit ñi leen jiite nekkuñu leen bañ joxe seen xalaat ñu bàyyi ci mooy bàyyi ñoom xel ñu war a bàyyi a bàyyi xel ñu war a bàyyi xel lépp su ñu fi doon def gàntu ga mbirum politique la rek imaam bokkoon na ci man ñi bokkoon naa ci booba itam kilifa diine Sénégal yëpp yabal nañ ci ay ndaw man sëñ Murtala moom fa yabaloon bokk naa ci liggéey ban ba mu nopp bañ koy yëgal waa réew man maa ko doon jàng ca institut islam waaye politique lañ ko dàqee rek mooy yooyu ñoo xam ne sëqoon nañ dara bu yàgg xay na ñu gis ci koo xam ne sëqoon nañ wàllu politique rek ñu dàq ko noonu waaye maître Babacar Niang mi ko ñu ko ñu ko tàmbali woon maître Babacar ñi da ko tàmbali woon rek xalaat bi daal jóge ci moom mu wër kilifee waxtee ak ñoom waaye moom defu ko defu ko waa Sénégal képp ko am def léegi nag mbirum politique la rek ak mbirum ay ay ay ay jote yu yàgg moo koy def dañuy jàng ci sa pas-pas pour yaxanal la nga def loolu ñun ñëpp xam nañ ni ki nga xam ni ab catholique la gëm ko soxnaam di catholique gëm ko buñ amee doom nga ni leen da ngeen di dem ci imam bi mu tuddal leen ko ñooñu yaa ngi leen di indil jafe-jafe buñ amee seen i itam pour koo denc ngeen ni leen il faut ñu yóbbu ko ca jàkka ja ñu jullee leen di indil noonu mu nekk jafe-jafe ci catholique bi noonu lay nekk jafe-jafe ci jullit bi mbiram yooyu nga bëgg yóbbu feneen foo nga xamante ni bii dëppoowul ak pas-pasam loolu mooy mbirum code de la famille code la famille bii Senghor moo fi indi dafa wax ni li tax mu bëgg ko fi def cité ay réew yu ni ñooña def na lool walla war na ci Algérie Il faut transformer la société sénégalaise wax loolu ba commission ñu bindal ko benn projet projet booba moi xamoon na ni lu mel ko Sénégal te waxuloo ci kilifa yi mu nous sommes les pour nous servir. Comme nous avons leen nous avons cadre ban utilisé pour euh, jàngal code bi le conseil supérieur islamique du Sénégal conseil supérieur islamique pour vous, euh,

liñ njëkk a wax mooy ba Sénégal amee ba léegi l'islam di fi dox la ñuy doxal ci wàllu famille ci alquran la jóge ci sunna la jóge te ñoom jàppuñu mi am na ku gën a xarale yàlla wala nga gën a xarale yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu wax boo waxee dara ci wàllu famille ñoom ñuy bàyyi loola bàyyi lu yonent bi di jàpp sa bos donc ñu ni ñoom loolu duñ ko def euh, ñi nga xamante ni bii ñoo nekkoon ci conseil supérieur islamique bi dama leen di liir pour mu xam ki ko jiite woon mooy alxaaji Saïd Nourou Tall li tax ko ñoom biñ dajee dañ ni nan def li ñuy def ci kër yi ku mag yaay jiite fii ku fi mag ñu ni alxaaji Saïd Nourou Tall moo fi mag ñu jiital ko ci critère boobu donc moom moo doon président ka ca topp di alxaaji Abdoul Aziz Sy moo doon vice président ka doon secrétaire général bi mooy Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Gaïndé Fatma loolu moo doon bureau loolu moo doon le bureau du conseil supérieur islamique ña nga xam ne ñoo nekkoon ci comité directeur ba mooy Alxaaji Saïd Nourou Tall grand marabout à Dakar Alxaaji Abdoul Aziz Sy xalif général des Tidianes Cheikh Ahmadou Mbacké grand marabout à Touba Cheikh Ahmadou Mbacké Gaïndé Fatma Amadou Lamine Diène grand imam de Dakar Ibrahim Alxaaji Ibrahim Niass grand marabout à Kaolack Alxaaji Mamadou Seydou grand marabout à Médina Gounass Seydou Ba Alhaji Cheikh Alioune Seck grand marabout à Mourane Alhaji Alhaji Shamsuddin Diagne grand qadi à Dakar Alhaji Seydi Magnol Laye khalife général des Layènes Alhaji Sidi Lamine Kounta grand marabout à Yassar lii moo doon comité directeur bi ñoom li ñu wax mooy ñii doy nañ pour représenter askanu Sénégal ci wax ci lépp loo nga xamante ni bi lislaam la loolu lañ wax Senghor bu amee nag ñoo nga xamante ni bi ànduñu ci woon ca code bi la démarche scientifique voudrait que ñu cité waaw man cité naa ñi nga xamante ni bii yëpp ñoo àndul woon ci code bi beneen bi mooy ñoom bi ñu saytoo code bi dañ ni entre autres ñu ngi lim ay article yoo nga xamante ni bii yëpp dañoo contre l'islam te nekk ci biir code dañoo weddi yàlla weddi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu tàmbalee ko ci article article un bu livre un amuñu jot bu lire article yi mais référence code bi dem di ko xool livre deux article yi may yi may yëpp sëriñ si nee na dafa contre l'islam article cent trois article cent quatre article cent cinq

acte mariage acte divorce c'est du dañu de l'islam ba ñëwee ci livre 3 article 191 article 197 article 203 211 est-ce que le livre may lim jar hein? voilà 216 218 223 253 hein et suivant relatif à la filiation paternelle et à l'adoption Yoyep un dafa contre l'islam livre 4 il y ay contre l'islam livre 5 il y ay contre l'islam livre 6 il y ay contre article contre l'islam livre 7 il y articles contre l'islam donc avons minimum recensé nañ 74 articles Nous avons ni bii nous ñu ko hein, les, les articles rédhibitoires articles yi tax ñoom mënuñu nangu code moy article yi ñu cité ko bam leer nañ donc serigne si bañu paré ci lolu Senghor Abdou Diouf la leen booleel mu recevoir leen pour jël seen liggéey boobu Abdou Diouf mo leen recevoir ba leen Abdou Diouf recevoir temps yooyu mo doon premier ministre ñu wax ko ñu jox ko mbir ab Abdou Diouf ñu leen maa ngi leen di garantiral ni baraa ñuy yóbbu code bi ci assemblée ñu koy voté danañ ci intégré seen wax ji loolu mësul am te ban ko voté en 1972 code bi génn sëriñ si xam ni voté nañ ko ñoom ñëpp dañ def déclaration seen déclaration ma ngi ci document bi ma doon lire léegi ci c'est à la disposition de tout le monde jox naa ko commission bi dina leen ko yónnee. ñoom ñëpp ñi ma lim ñëpp à l'unanimité ils ont dit que code bi dañ ko rejeter et c'est un rejet total et catégorique waaw sëñ Abdoul wax ni ñu ko appliquer Touba sëñ Abdoul Aziz si wax ni ñu ko appliqué Tivaouane Mañon lay wax ni ñu ko appliquer euh Yoff ñeneen ñëpp wax ni gox yanu nek duñ ko fa appliquer parce que ñom ñëpp ñoo bokkoon liguey bi ñoo ànd ñoo benn kàddu dinaa ñaan président mu lire procès verbal parce que yoruma samay lire procès verbal euh, bi bi sëriñ si def euh, procès verbal bi dinaa ko ñaan mu lire ko jë loolu lay jeexale